rek la may defaral mu so tàngal sama xol te am lu bett koy ñaanal maa ngi ñaanal Moussa al na ko yàlla xaajal jàmm al na ko yàlla xaajal lu mu bëgg si al na ko yàlla dugal àjjana al na ko yàlla yërëm yàlla mu daj yu ko yërëm Moussa yàlla moo ma ndax ak moom comme si ngoon la war a jël départ pour treize heures la ma woo ko ma woo ko ma ne ko nekk mu ne maa ngi Dakar ma ne ko jëlagoo départ mun naa jóge foofu mi vers dix-sept heures laa foofu ma ne ko booy ñëw nga indil ma sa rici ma soobee yàlla ba may egsi rek loo naa la ko defal ma tëdd ba guddi. ñëwal ma si gént nit ñëw si man mais mu Moussa dee ma daal di tiit si nelaw bi ma jóg ma taal lamp mu seet sama néeg jëf fépp gisuma dara man xanaa lii gént la ma tëddaat mais nelaw ma tudd yàlla nelaw ma dégg téléphone sonné benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon téléphone papaam ma daal di génn ma génnee ma ubbi ba taxaw si buntu saal bi ma gestu ni gisuma kenn ma gis papa mu ngi toog si digg ëtt bi ma génn ma ne ko sa téléphone sonné na de ba jàmm mu ne dafa am ku ma woo ma ne ko kilo la woo kan la mu ne ma xaw ma ku ma woo mu ne dama bëgg nga defaral ma kafe ma ne café heure bi quatre dimate ma ne ko mbur yi ñëwuñu te bër setul daal di tàngal café ma andil ko café bi ma ñëwee teg café bi rek ma gis Moussa Sow sama buntu kër borom bus bi ma gis ko ma si gis ñeneen ñett moto taxaw ma ne papa Moussa Deen mu ne ku la woon ni Moussa Deen ma ne ko ñii ma gis nii heure bii ma ne ko Moussa Deen mu ne yaa ko wax de man waxuma la Moussa Deen ma génne ñëw si xale bu góor bi ma ne ko ana Moussa mu ne yaay mu ne Moussa dafa def choc ma ne ko Deen mu ne ma deewul ma ne ko Deen heure bi yéen ñëpp ngeen ñëw suñu buntu kër sama doom bi Deen Moussa. Você quer me dar para ele? Allah Allah Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Sénégal ñàkk na ñëpp a ñàkk c'est bon pour waaye na yërëm dañ ko yéen ngeen baal ko ak ñëpp baal Moussa yorul kenn ak ñëpp dañ ko baal ak ñëpp ñu mu àndal Allah. magam mu ne na ko jox Moussa Moussa dem na Moussa dem na. Mm. na ko yàlla amiin. demam bi bett na